Salut les amis de Baba Show et Sport TV. Merci encore, gars, de la confiance au renouvelée. Merci de louer du like. Merci de louer des abonnés. Merci également du bail des commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois. Des partages avec des informations. Inbox sénégalais. Fait pour le Montenegro. 14 régions du Sénégal. Rukurukhari, Gorgokhati, Migne de Djadjefoul. Nous sommes également à l'hôpital et sécurité du février. Yal nos numéros focus en bok ñorek jam. Ñi nek ci kasso yi xamné aussi erreur judiciaire Guinée ñene ñu deful mo leen fa yobbu suñu borom gënal leen fa dañ seen njabot ñi de droit de na suñu borom xar leen daaje ne fi do ci gaay on avance ensemble dans la magie de Babo Show et des Sport TV. L'actualité en continu, gars, actuelle, nous faisons Wartane, qui a donc Mouri Yaou, Midali Delusi, carrière, tu clairement aussi après élimination au Sénégal, qui n'a pas la porta, Lumu Wako, tu as Real Madrid, ak Mbappé Nyo, Midal, <laughs> tas, mais là, t'as bon, Sénégalais, Demlen Djeli, c'est ni carte électeur, Demlen Djeli, c'est ni carte électeur, élection, dimanche, Inch'Allah, Rabi, de voter, ndogu jubilé ni ko gars yi waxee li ñu ñaan daal gars yi moo ko xam mustal sàcc xaalisu réew mi daal yàlla nga nekk président 我说，来一样。 loolu daal laay ñaan gars yi pendant ce temps waa Nike nag ñooy nekk léegi le sponsor euh, de waa Allemagne ah après gars yi bu seen contrat ak ñii di waa Adidas jeexee après soixante dix ans ak lu ko tegal ñu nekk partenariat ak Adidas Allemagne léegi changé nañ léegi waa Nike daal ñoo fas yéene ah, ci yeneen ma yooyu nekk seen ah, sponsor kii nag di papay Neymar génn na nee na nag li gars yi wax naan Neymar moo fay Dani Alves un million yi nee na fayu ko nee na ba mu amee na ci mais du problème moom du mooy fay un yi na mbokkam même bu fekkee ñu ngi koy soutenir Xavi Simons nag kii di donc Luis Enrique nee na daal booy bi euh, nekk na joueur cadre boo xam ne élément boo xam ne mën na ak nànd na football bi nga xam ne moom la bëgg a football parce que booy jaar na Barça et tout et que élément clé la ci saison bii di ñëw pendant ce temps également Luis Diaz mi gars yi doon wax naan Paris Saint-Germain dafa intéressé aussi moom ah Paris nee na moom daal fi mu ne nii yeneen cible la nekk Luis Diaz nekkul sax seen xel ah wu leen sax ñu naan dañ koy jéem a recruter loolu daal la dirigeant parisien yi daal di xamle donc bokkul seen i plan kii nag di Bukayo Saka gars yi dafa am blessure wala boog dafa ressentir ay douleur moom it ah, ñii nag di waa Angleterre bañ a jël ay risque daal di koy bàyyi mu daal di Delou, clubum, donc l'international anglais de Gunners d'Arsenal. Pendant ce temps également, Gaï Mourinho Moridiaw moom daal gars euh, après défaite bi gaï donc Nyom ci coulisses yi la ñu le jour bi défaite après défaite tamit ci ba waxtaan nañ cadre yi waxtaan nañ ne nag lépp mënu ko wax waaye en tout cas daal nee na fi ne nii dañoo relativiser ah par rapport li nga xam mooy donc élimination bi amoon ne loolu nag mënuñu si dara fi mu ne nii ñu ngi waajalaat seen bopp nag amaat beneen taxawaay bu yees bu ñu bëgg a am Mori Diaw bi nga xam nag nee na fi mu ne nii daal moom daal actuellement du côté de Clermont mi ngi def képp talaay kàttanam saison moom baax na même bu fekkee ne euh, club am fi mu ne nii day defal tout tout pour bañ a wàcc daaw def nañ saison bu baax a baax mais ren nag dama wut noonu mais nag moom nee na aujourd'hui il est plus que motivé au niveau de l'équipe nationale du Sénégal tey la gën a taxawu tey la gën a ñoñal li nga xam mooy bëggam ak li nga xam mooy donc envém jouer ak Sénégal et que aussi ñoom ñëpp ci même dynamique bi la ñu daal di euh, nekk loolu la Marie Diaw daal di xamle bu ñu jógee si loolu wax ci Juan euh, Laporta Laporta moom nee <laughs> <laughs> nee na ñeew ma Real ci li mu li ñu jënd Mbappé ah nee na au contraire ñoom ci problème lañ nekk ci guuta la nekk parce que nee nañ Mbappé li mu fa ñëw noonu day déstabiliser vestiaire bi parce que forcément nee na forcément ñii di waa Real ah dinañ jaay seen benn cadre parce que tamit moom poste bi muy joué ah donc euh, du du du du moom du nangu également di toog banc te joueur yi fa nekk également duñu bëgg di yàgg ci toog ci banc bi par exemple daal jàpp na fi ni daal nee na ñëw Mbappé du côté du Real nee na ay problème la fi indi pare salaire gu bëri lañ koy fay